également tous les téléspectateurs yi nga xamante ni yéen lay seetaan Rewmi TV di la nag jàmm si seen émission bii di Actu Rewmi comme ni ñu koy defee saa su nekk fi am li ko dara ci actualité mooy santé économie société politique lépp daal dinañ ni moom mooy Rewmi TV ñëw euh, ànd ci ak ki nga xamante ni moom mooy sama euh, chroniqueur saa su nekk ñu waxtaan li nga xamante ni moom mooy wàllu actualité laataa ñu def te ki nga xamante ni moom mooy euh, sujet yi ñu war a waxtaane tey nag damay bàyyi rek ki nga xamante ni moom mooy Jean Fall mu daal di euh, nuyu ak ñi nga xamante ni ci tànn monsieur Fall ngi nuyu baax baax euh, Mor maa ngi lay fay di nuyu nag ñi nga xamee ne ñoo di internautes yi ak téléspectateurs yi ak yi nga xamee ne ñu ngi suivre Rewmi TV di leen dellu di leen wax rek ni mbégte lay doon pour que rek ñu dellu si di commenter actualité bi nga xamee ne rek moom la moom la ñu euh, yeyoo ñun ñi nga xamee ne ñu ngi nekk ci euh, média yi ak euh, information yi di leen indil nag li nga xamee ne rek moo di explication bu leer ci li nga xamee ne rek mooy xew-xew yi nga xamee ne moo am parce que léeg-léeg da gis rek que ni lépp dafay nekk de manière empirique mais ñun dañ koy ñëw delloosi ko ci simple expression bi nga xamee ne ki nga xamee ne moom xalaatam yeggul sax ci yenn xalaat yu mag yi dina mën a daal di jël information bi xam lan la. xam la waaw tey moom daa mel ni da ngaa daanaka tey moom naa kontaan ci euh, solo bi. Hmm, moom nekk nii de moom. mu ngay jima mook di bàkku rek fa mu nekk nii. <laughs> voilà donc kon euh, ni ñu ko defee saa su nekk rek tey euh, sujet yi nga xamante dinañ ko waxtaanee euh, bi ci gën a mag moom mooy génn àdduna ki nga xamante ni moom mooy Hissène Habré coow li nga xamante ni moom moo am ci gaañoom beeg li nga xamante ni moom mooy wàllu indemnisation yi ñuy wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon ci affaire victime yooyu nga xamante ni moo amoon ca dëkkam borom ñu tëj ko fii ci biir réew mi waaye tamit dinañ wax ci beneen wàllu muy li nga xamante ni mooy affaire de mœurs yi nga xamante ni dëkk bi saa su nekk mu ñuy gën di am doole ci biir réew mi saa su nekk xale yi di def ay dérive ba ki nga xamante ni moom mooy suñu euh, analyste politique yi nga xam nekk fii nga xamante ni moom mooy euh, biir réew mi def na ci jàngat bu mag a mag a mag yooyu yëpp dañ ci waxtaan waaye jeexale ko ak suñu euh, naataango sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo daal di bloqué fa nga xamante ni moom mooy Maroc bëggoon a ñibbi si fii ci réew mi loolu moo nekk sujet yi nga xamante ni dinañ ko waxtaanee tey waaye ni ñu ko defee saa su nekk rek dañuy ubbee ak li nga xamante ni moom mooy la une de réew mi quotidien à la une garage Colobane deux passagers fracassent le crâne d'un chauffeur et puis toujours dans Rewmi Quotidien xam xamle de yëmbal l'école des bachelières de 13 ans menacée de fermeture toujours dans ce même journal Amara Dieyna Baldé cirque noir faut-il libérer euh, les mœurs au Sénégal point d'interrogation et toujours dans le journal Rewmi Quotidien litige foncier à Tivaouane jour de vérité euh, pour les euh, Mour-Sarchidines. Et puis on va parler de Réumi Sport aussi avec euh, l'Afro-Basket 2021. Le Sénégal explose l'Ouganda à 93 à 55 but ce que le Brésil favori face au Sénégal. Et ñu terminer ak li nga xamante ni mooy PSG le Qatar fixe le prix de Mbappé loolu moo nekk titre yi nga xamante ni Rewmi Quotidien génn na ko ci li nga xamante ni mooy sa parution du jour donc. ki nga xamante moom mooy Jean Fall ñu xaar la ban appréciation ngay def ci titre yi ak à la une bi nga xamante ni moom moo gën a fës muy garage pro Colobane deux passagers fracassent le crâne d'un chauffeur. waaw euh, Mor euh, dina kontaan ci commenter li nga xamee ne moo di la une de réew Rewmi Quotidien ndaxte réew Rewmi Quotidien comme ni ma baaxoo di ko wax rek euh, c'est l'information juste bi nga xamee ne moom lañ lay indil la mu nekk ci biir. Euh, li nga xamee ne moom la askan bi di dund jàngat bi ñi nga xamee ne nag moom laa ci génn tey jile ci ñaari euh, waxambaane yooyu nga xamee ne ñoo nañ wax ak chauffeur bi xam nga li ñuy wax rekk ne yaa tas yaakaar baaxul xam nga par exemple euh, Sénégal dafa am loo xamee ne nit ñi dañuy oyofal li nga xamee ne moo di ay contrat wala looy waxanteeg nit da ngay waxanteeg nit tout de suite ngeen nekk ci mbooloo yu mel ni garage yooyu mu am ko la ne eh, bu ko def de foofu de defe naa jaar naa fa sànq waaye am na benn xeer fekk yow waxante nga ba ñii am yaakaar ci yow nga dem nga xamee ne ñooñu dégg loolu yépp dootuñu mën a euh, la jël te yow fi ñu toll nii yow euh, chauffeur ba xamul la fa nekk. Euh, ñoo ñi lay jël xam nañu xamuñu xëy na la fa nekk parce que fi ñu jógee di fa dem ndaxte jamono ji ñu toll nii inondation yi dafa bette fépp dafa bette li nga xamee ne nag moom moo ci nekk ci mbir moomule toujours mooy rek euh, boo demee ba nga xamee ne waxaale nga ak nit ki war nga sàmm sa kàddu te aussi li nga xamee ne nag moo di euh, euh, jafe-jafe bi nga xamee ne moo tax ba ñu toj bopp bi waroon na mun a ñàkk ndaxte nit ki su fekkee ne euh, c'est au plus offrant bu fekkee ne dem nga ba nga xamee ne wax nga kii dégg nga nga munul nga dem seeti keneen mais xam nga comme ni ma lay waxee ci culture garage yi ak chauffeur yi ak marché da ngay taxaw di wax sax léeg sax ngay ñëw di waxaale kenn ñoo daal ne la gis nga loolu mu la wax noonu man jaayee naa ko cent franc te fekk yoonam nekku ci ñoom ñuy indi mbir yooyu di wax rekk ni réew mi fi ñu toll war nañu mun a toog nag dégg nga daal di boole xol yi delloo si waat xol yi pour mun a daal di euh, defar réew mi nga xamee ni moom lañ soxla mënuñu bu fekkee ne ñu ngi naan euh, ñi ñu jiite defuñu li leen war ñun ñuy reyante ci suñu biir cëmba sëmbaxoo sëmbaxoo daf fi dafi daf am beneen mbir bi nga xamee ne moon taxaw ci euh, wàllu euh, li nga xamee ne moom la Assane daal di wax ci euh, merci dégg nga dafa nekk li nga xamee ne suñu aada ak dafa jaare ko ci aada senegal li nga xamee ne moom lañu xam moo di ki nekk ci biir kër gi am 40 ans am jabar papaam nekk ci kër gi bu buggee teg loxo jabaram sax dina am kersa boo xamee ne dina ko kii faut-il libérer gis nga kersa sutura bi nga xamee ne moom lañ war a tënkee ëmb ko ci wàllu li nga xamee ne mooy suñu aada suñu culture bés bu ñu ko dindee bu boobaa dinga gis que ne dinañ fekkaat keneen ku ñëw toog ci suñu ànd dégg di jaaru te duñ ci mun dara Euh, côté sport bi laata ñu dugg ci développement. côté sport bi nag côté sport bi euh, li nga xamee ne moo ci nekk rek moo di euh, ni ma ni ñi nga xamee ne noonu lañ présenté woon équipe bi demoon ci afro basket bi li mu génn tey ji ni correspondre na ak développement yi nga xamee ne coach bi doon na ko wax balaa laataa ñuy dem dañuy doog rek di leen ñaanal pour li des ci compétition bi bu ñu dajee ak ñi nga xamee ne ñoom ñooy ay Nigéria. daje ay Cameroun daje ak euh, ñi nga ak euh, Égypte ak Tunisie bi nga xamee ne moo jël mbir mi foofu la ñuy mën a daal di yuuxoo mais li ñuy mën a wax rek moo di ñu ngi leen di ñaanal que nii rek lii ñu commencé rek sumb ko ñu dem ba ca pandaw ba ñu delloo si waat coupe bi. ci wàllu bi kër bi nag moo di que ne ñu ngi dem quart de finale dañ daan wax ne euh, moom moo fi mun mais mit la mm. waaye duma ko Sénégal mun na ko. waaw foofu la foofu nag laay Sénégal Sénégal dóor na équipe bu mel ne euh, champion du monde jël ki bi dóor na ko te ki jël raaya bi dóor na woon na ko moom. Mm. moom bu ñu dajee moom mu dóor ki mën bu ñëwee ba ci ñi nga xamee ne ñoom la ñuy wax ñoo fi mënoon <laughs> bu <laughs> kii la rek ay xeex la rek. gis nga mooy toujours rek li nga xamee ne moom la ñuy wax ba ci Coupe d'Afrique bi ci équipe nationale bi dañuy wax nag waa fi groupe de la mort la nañ moytu kii nañ moytu kii boobu dafa fekk wóoluwoo sa bopp mm. man quand je fonce je gagne. quand je fonce je gagne je pense que li waa am na importance dañuy bi rek ak li nga xamante ni moom mooy suñu euh, titre yi ak li nga xam lu ñuy waxtaanee tey si njëkk moom mooy génn àdduna euh, kii di Hissène Habré ñu war ko euh, denc fi nga xamante ni mooy Sénégal xam naa fii ak ngoon. Mhm. mais li nga xamante ni moo am coow ci génn àdduna bi mooy kii di Habré ba mu nekkee ci kaso bi ba léegi soxnaam mu ngi doon sàkku ñaar di koy génne fi nga xamante ni fa la nekk ci kaso bi ndax nee nañ yaramam dafa sutante donc ñu xëy ñu ñu abre gaañu na nañu corona moo ko rey. Mhm. donc euh, buñ demee ba ne corona moo ko rey ñee génn na ñoom euh, kii di abré jëriwul corona ci biir euh, kaso beeg yu ni mel ku nekk di di andi démenti si sa morom donc yow ban jàngat nga am ci lu mel ne kilifa gu mel ne ki nga xamante ne moom mooy ki abré bu fekkee def na ñaaw téef mais lu mu lu mu dee dee ancien président la mais ñu tëj ko ci kaso jabaram di saako ñu génn ko ndax mag la ndax dafa feebar. donc yow ba nga jegee euh, génn àdduna bi ndax amoo tuuti euh, li nga xam ne mooy njàqare si suñu réew mi. moor xam nga fu dee dugg rek suñ borom dafay taxaw doomu aadama yi pare nañ dañ ci pare même gis nga li moom ba muy dee mu nga nekkoon ci détention te mun nañu wax ne poursuite yañ ci amoon ak leneen luñ ca doon wax yépp léegi dafay fay ndaxte ku dee dootoo ko mën a topp. di dellu nag di wax suñu mbokk yi nga xamee ne yéen eh, ñoom ñoo déggandoo comme man ci rajo bi que ne dee na li nga xamee ne moo ci nekk rek ak liñ ñaawteef yiñ ko jiiñ yëpp lenn rek dañuy màssawu waa këram ndaxte ak nu munti mel ak lu mu nekk responsable responsable waa këram dinañu am naqar te loolu yëpp li nga xamee ne moom lañ ciy jàngal rek moo di que ne dañ leen màssawu di leen ko jaale. pour ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo dee ñoom lañ ko jiiñ ne dee nañu bokk nañu àtte léegi dem na foofu ñoom nag ñoo xam lan la yàlla di lijjanti foofu foofu la doomu aadama yi war a yem ci ni nga xamee ne noonu lañ ko kondaane woon nag ba ñu war a nag euh, daal di fay ñi nga xamee ne rey nañ leen ak yéeg noonu procédure yooyu war nañu mën a xool ak moom ni mu dee poursuite yi nga xamee ne moom lañ ko toppee woon parce que am na ci yoo xamee ne bu dee moom ci boppam moo ko waroon na ki euh, poursuite yi dafay dafay éteindre bu fekkee ne état euh, Tchad ñu moo war a fay ñoom war nañu am na lu leen war ndaxte Hissène Habré dafa nekk personnage boo xamee ne un peu complexe ndaxte Hissène Habré nee nañ ko rebelle la nee nañ ko combattant la nee euh, guerrier la nee nañ ko euh, moom kile la aussi euh, nationaliste ba réewam biñ ko ak lu ci munti nekk rek ñoom ñëpp euh, nee nañu duñ ko defal obsèque national waaye dafa am ay yenn condamnation yoo xamee ne mu nga nekk ca moom ak yu mel noonu ba loolu sax yokk a tax ay waa këram ne nañ ko suul fii ndaxte yéen da ngeen a xaw a da xaw a nekk jeune tuuti parce que Hissène Habré Euh, ñun bi nga xamee ne ci waxtu yi ñuy nekk ay étudiants waxtu boobu mu ngi nekkoon euh, dans le Tibet dégg nga ak bande Daouzou di ak euh, ñi nga xamee ne mooy otage yi nga xamee ne moom la jëloon ñu koy wax madame Claus ba nga xamee ne sax pour que France pour mun a libérer otage le am na ci yoo xamee ne dañu woo professeur am bi ko doon jàngal. ca université ba moom moo demoon di négocier ji pour libération madame boobu le te yooyu yëpp ngay gis bi nga xamee ne mbir mi dem na ba libération ba am dégg nga da gis que ni dafa mel ni France ci ni nga xamee ne noonu la ñuy defee seen diplomatie jàppale nañ ko ba nga xamee ne ñëw na nekk président de la République dégg nga mu am jamono joo xamee ne euh, Hissène-Habré ngay dégg Goukouni-Weddey ngay dégg Wouldys Deby ngay dégg Hissène-Habré Goukouni-Weddey ñoom ñëpp. dégg nga ci biir loolu yëpp ñu dem ba nga xamee ne arrangé leen pour ñu mën a freiner li nga xamee ne moo doon Kadhafi ñu daal di ko jël nag dégg nga daal di ko bloqué dégg nga daal di dax ko jiñ ko dëmm bañ ko jiiñee dama ñëw na ba Sénégal bi mu ñëwee ba Sénégal am na ci ay kilifa yu am doole yu nekk fii yoo xamee ne ci xaalis ba mu indi woon fekkoon nekkoon na fi premier ministre fekk nekkoon na fi yi boo xamee ne avéré dégg nga ñu daal di ko jiiñ to takkal ko ci kii yooyu te xaalis booboo ki yeeg yooyu yëpp dafa mu dem ba nga xamee ne wakaam ba mu dëkk nit ñi nee nañu kii nit ku baax la donc gis nga lépp li nga xamee ne moo doon motiver. lam doon def jeex na tey lu baax lam doon def xëy na mun na ko wallu loolu rek lañ ci am yaakaar. mais mais gaañ bi nga xam ne gaañ na ko ñu ne euh, Kona moo ko rey léegi ñu ñu xëy même pas amul 24 heures ku ci nekk démentir sa morom euh, waa pénitence génn communiqué ne amul benn nit boo xamante ne am na Kona ci biir. fi nga xamante ne moom mooy euh, biir prison yi donc cela bi ñoom seetaan seen der na moom contaminé wul foofu ñuy wax na si clinique ba la la contaminé donc yow ba nga dégg ñu ne si biir clinique fa la contaminé alors que foo ñoo war a protéger ba nit ki buy génn sax daa war a set si feebar nga jële fa feebar ba ñuy génn la ba nga génn si àdduna donc yow ndax amoo tiitaange fu nekk nii ci ci euh, information yi nga xamante ne ñu koy joxe si administration laa du wax sa côté euh, média yi mais administration yi joxe parce que si nekk yaa ngi buux mbir mi sa sama rôle ak lu ci munti nekk rek ak lu ci mën di nekk rek li nga xamee ne moom laa ciy wax moo di que ne Hissène euh, Habré nekkuloon prisonnier wu Sénégal Hissène nabre li nga xamee ne moom laa am ci njort bu rafet que ni pénitencier euh, administration pénitentiaire au Sénégal def nañu seen liggéey pour à chaque fois gisoon nga ni bu ñu demee ba yaakaar ne Euh, mbir mi dafay am euh, difficulté ak yu mel noonu compte tenu de son état dañ ko jël bàyyi ko mu dem këram. bi ñuy jógaatee affaire bi di jógaat di ñëw ñu daal di ne euh, ñu delloowaat ko ca biir mais balaa ñu koy delloo ca biir Sénégal dañ la ko gardeloo rek. bañ ko gardeloo teg def na condition yi nga xamee ne waa ji dina mun a survivre mbir mi du ko fa fekk ñun ci loolu rek lañ mun a tënku. ndaxte comme ni ma lay wax. Euh, nekkuma fa woon mais ni ma gisee euh, ñuy euh, gestes yi nga xamee ne administration sénégalaise bi ñu ngi ko doon def ce qui veut dire que ne tout ne peut pas être parfait waaye li wóor moo di que ne keroog ba ma déggee ne dee na dama ne mais naka la ñu mën a fexee ba nga xamee ne rek dégg nga nit dina ko fa fekk pour contaminer ko ci laa déggaatee ne ci benn clinique lañ ko kiyee ci benn clinique lañ ko euh, lañ ko contaminé ci wàllu nag affaire clinique ak ci li nga xamee ne mooy euh, contamination yooyu dafa ramener li nga xamee ne la question d'hygiène yi nga xamee ne ak euh, li nga xamee ne moom la ñu war a def pour rek ñu mun a gérer Covid bi ak les soins yi nga xamee ne war nañ ko mun a def pour rek daal di jéem a euh, yokk euh, hygiène bi nga xamee ne mooy tax contamination yi di wàññeeku. Mm-hmm. ndaxte autant da ñuy dee. ñuy dee ñëpp ñëpp ñëpp ñu ci bare ci centre de santé yi lañ leen contaminé ñu ci bare ci mbooloo yi fu ñuy daje lañ leen di kii ñu ci bare dañu nekk ci euh, wàllu ñi nga xamee ne dañu nekk ci médecin yi nga xamee ne ñoom ñoo war a kii tey ci suba rek maa ngi dégg ñuy wax ne ci affaire Covid bi euh, virus bi mun na jaar ci bët yi donc ñi nga xamee ne ñoom ñooy euh, docteurs yi war nañu mun di sol ay lunettes comme sama lunettes yi nii wala ay lunettes spéciales pour rek daal di mun a protéger wu contre fi nga xamee ne opportunisme virus bi mun na fa dugg par opportunisme. dégg nga daal di ñëw nag lëjël euh, nit ñi li ma lay jàngat rek mooy man si sama bopp man dama ne administration bi def nañ li ñu war a def ndax Hissène Habré du woon prisonnier sénégalais la ñu waroon a def dañ leen ko dénkoon li ñu waroon def sur le plan humanitaire ñu ngi ko doon def Hissène Habré ba ñuy wax ne nañ ko jël ñu génne ko wala mu dugg moo dafa nekk ñoo xamee ne euh, il faut que ñu daal di xam ne euh, la fa Sénégal waroon na def yëpp def na ko fi jabar ji dégg nañ ko fi ñu ngi ko jël euh, héberge ko fi amul lu mu deful selon les médias pour dénigrer ni nga xamee ne moo di euh, la politique sénégalaise les trucs sénégalais yooyu yëpp ci suñu teraanga rek la. la fi mu nekk nii lan moo ciy xaar Sénégal parce que ñu bëri am na ñoom titre sax naan li président bañoon Macky Sall moo moo ko nangu muy euh, jébbal ñu ko bëggoon jébbal euh, pour ñu jugé ko dëkk yëpp bañ Sénégal nangu ko fi mu nekk nii gaañu na ñu wax ne il faut ñu génne 82 milliards yi ñu waroon fay indemniser ñi xam ne victimes yi dañu toll jamono ji ci 4000 victimes donc yow euh, ndax jàppoo am na lu lu lu lu garaaw luy xaar Sénégal ba fi mu nekk nii moom dee na indemnisation bi ñuy xaar euh, lii ni ñu doon bañ naan buñ ko andi fii Abdoulaye bañ koo Abdou Diouf bañ ko Macky Sall ñu nangu ko donc yow ndax am ndax jàkkaarloo Sénégal côté diplomatie mën na ci am problème ci euh, déew ki nga xamante ne mooy euh, après ñu jeexalee sujet boobu. ma ne dara duñu ci fekk xam nga li nga xamee ne moom laa bëgg mu leer moo di ni bu fekkee ne. Euh, condamnation Hissène Habré boobu pour euh, euh, dédommager victime yooyu Hissène Habré ci boppam en tant que personne moom la ñu condamné woon pour que moom mu fay loolu bu boobaa dinaa la wax ne la bu dee point d'interrogation bi moo di génne indemnisation yooyu dafay dafay éteindre dafay fay bu fekkee ne nag c'est l'état tchadien parce que euh, daf ko defoon au nom de la République au nom de son nationalisme au nom de son appartenance à une nation état tchadien bi la état tchadien bi moo war a jóg lañ war a def pression mu fay loolu daal léegi bu ñu bu ñu jëlee buux ko Sénégal ne ko Sénégal moo nangu woon euh, daal di jël xaas doo ko sax si affaire bi nga xamante ne moom moo nekkoon euh, kii spécial boobu ñu mën a jugé ki nga xamante mooy Habré ndax jàppoon ne mbir mi dina mu mujj retourner si kaw si kaw. Euh, mënu retourner ci kaw Sénégal parce que defe naa ni tribunal boobu tribunal africain la woon. Mm-hmm. tribunal africain. xaalis ba fay dugg ak ya fa doon nekk ak li ñuy kii ñi nga xamee ne ñoo doon partie prenante pour que ñu constituer affaire boobu foofu organisation boobu mu ngi mel ni UMOA. UMOA bu cautionné affaire bi UMOA mooy fay mais Sénégal li yoonam nekku ci. UMOA sax dafay xëy suba daal di ne Sénégal génneel Hissène Habré Sénégal ne ko demuma. kon boobu boobu boobu fotee sàcc sa sa kër bu ñëw ñëwee di kii sàcc ndax bala ko du ci am problème. non bu fotee ngi dégg nañ leen ko jox ak xam ak yelleefam. bu kenn dóor bu kenn dóor. Hmm. mais bu boobaa euh, naka la tudd mooy rek li nga xamee ne moo xew Sénégal léeg-léeg nga gis koo xamee ne dafay jàpp sàcc dóor. Hmm. ñu daal di ne ko jàpp nañ ko prison indil ko lekk. Hmm. léegi kon duñ ko def naan euh, sàcc xeeraw lépp sàcc la duñ loolu du kooku duñ ko def Sénégal ndaxte Hissène abre ba muy def euh, mbir boobu dafa ñëw daal di nekk selon les principes de la République. des principes du droit sénégalais dafa ñëw takk fi sénégalaise def di nekkaat sénégalais mu ngi nii Compaoré dóor na def na xaw ma ñaata temps de règne ñu giiñ nañ ko yaa rey kii reyuloo kii bu nga nee dem Côte d'Ivoire te dafa nelaw

am daal nañu joxaat cër ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, prisonniers yi comme ni ñu ko waxee suba si ne euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci prison ba léegi kenn vacciné gu leen lañ leen vacciné même si euh, waa rajo confirmé nañ di abré ils étaient si li nga xamante ni mooy ba ñuy def début vaccination bi donc mais xam naa mbiru yàlla bu ñëwee rek ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjanati aussi yàlla atte ko ci yërmbaane bañ ko atte ci ci jëf ñu def li nga xamante te di la wax rek ni Euh, euh, état du Sénégal ba Hissène Habré duggee fii bañ ko jàppee ba léegi. patate sod lañ ko tuddee watuñ ko sax Hissène Habré. Hmm. patate Ibra euh, patate chaude Habré <laughs> patate chaude. sod alors patate chaude nag moo di gën ni sa kéemtulaay kattan di nga ko def dégg nga jóge nag. jóge ci sa prison pour que ñu mën a fexe joxaat la des chance yi nit ñi doon wax ne la da ngay dem sa kër fa ngay mën kii bu nekkoon këram bu ñu ko yóbboo ca clinique ba clinique ba ne ko buñ ko yóbboo ba foofu liñ ciy def daal mooy li nga xamee ne rek moom la Ponce Pilate defoon bañ ko indilee Jésus dañu ñëw daal di ne ko yow yaay buuru gan mu daal di ne ko man buur bi mooy moom la moom buur bu mag bi mooy yàlla kële daal di ne ko Jules César moom ma moom ma moom ma euh, kiiloo euh, moom ma bi mm-hmm. bi mu demee ba gis ni xamul lu muy wax mm-hmm. dafa jël ndox raxas ay loxoom ci kii bi ñu Sénégal raxas loxo bu Ponce Pilate ba mm-hmm. loolu moo ci fekk Sénégal amul leneen lu ci nekk dégg nga di wax rek ni euh, c'est pas que dëkk bi dafa métti rek que ne gaañ lu ñuy def baaxul la ñun ñoom seen dëkk lañ fay def baaxul waaye ñun suñu dëkk am na lu ñuy def mu baax am na lu ñuy def mu baaxul. am ñun li ñuy def baax na. am na lu ñuy def lu baaxul si loolu la ñuy duggee ci. deuxième sujet muy wàllu mërs bi nga xamante ne jamono ji Sénégal foo toll ñu ne def nañ lii euh, mërs lii fii lii dëkk bi dafa dem ba léegi sax mel na euh, li ñu naan kersa moo amatul si nit ñi euh, kiiraay moo amatul si nit ñi donc yow boo boo gisee jamono ji léegi loo xamante ni nekk woon ci ci ci li ñuy gis Sénégal rafet léegi loolu lépp ñu fësal ko ay affaire de mœurs ay affaire de vidéo fii ay affaire de xale jigéen ñuy teg diir fii donc yow euh, ndax jàppoon na mu nekk nii euh, sujet bi kii di wax sax naan euh, monsieur monsieur monsieur monsieur Samb naan faut-il libérer les mœurs au Sénégal fi mu nekk sax ñu libérer nit ñu ku nekk lu waaye def boppam. lépp ëpp naa def loolu ëpp naa def li fi nekk rek mu ngi ñuy dérangé di fi nekk rek xam nañu ne c'est pas conforme ak ñun. le sénégalais type dégg nga ñu ko libéré fu ñu jëm ñun dem nañ ci dëkk yi ñu libéré dëkk yi nga xamee ne libéré nañ merci dem nañu France nga xamee ne dañ ko libéré France ku la neex àndal ku la neex tëdd fu la neex wane fu la neex dugg ci néeg daal di tëj génne daal di def sa film waaye ñun yàlla dafa def ne dañ ñu yaree que ni lépp loo xamee ne affaire sexe la dafa nekk loo xamee ne tabu la tabu nag moo di que ne loo xamee ne dañ koy wax ci biir néeg ba woykat ba daal di ne bu guddee bu ñu dindee bu ñu dindee toit yi la nuit les chats gris donc ce qui veut dire ni lii xew ci biir dañ koy def toujours ci sutura ñun loolu lañ xam. mais est-ce que Sénégal problème bi am mooy. Euh, dafa am juste benn benn mbaraan bu ñu teg suñ kaw ne naan seen Sénégal réewum diine la Sénégal réewum réewum teranga la Sénégal réewum boo xamante ne dañoo am culture est que nekkul ne euh, dafa da explosion moo am la parce que nit ñi la dañoo dem ba bari ñoom li ñuy li ñuy dund mu mënuñ koo mënuñ koo nëbb ñu ne xaar ñu parce que dañoo dañoo sonn ci tëju tëj parce que euh, dañoo wax ne enracinement ak ouverture mooy suñu président waxoon est-ce que nekk ouverture boobu ñu waxoon moom moo ñu mujjee rey ouverture boobu France ba muy def ouverture Allemagne ba ñuy def ouverture ci aspect yooyu culturel yooyu dañ ko jël normé ko dañ ko jël teg ci ay kii parce que France mënuloo ñëw ba ci digg place publique bi ngeen simee ku def yaramu neen tëdd ci mbedd mi yaa ngi dégg donc ce qui fait euh, il faut de la mesure il faut que ñu déggante il faut que ñu dégloonte dafa am yenn yoo xamee ne boo koy jël dégg topp sa bànneex euh, ndax fii rakk topp mag lañu xam dañu am ñun ba ñuy am sutura boobu diine indi luñu ko ma wax la ko nag diine bi ñuy wax naan dëkku diine la euh, indi lu ñu ñuy toog ba nga xamee ne su fekkee ne yaa ngi bugg a déyanteeg sa jabar dégg nga da nga du diine moo ko indi léegi mun nga ba woo ku la neex du diine ma ko diine dafa ñëw renforcer ko ba mu ko gënee renforcer nag ñu daal di jóg gis nga ne ñu daan takkee ne ñu daan joxe jabar nañ daan kii ba diine may ñu sax dégg nga ngay jël sa jabar ñu daal di jël ay dank dugub dank ceeb dank kii di euh, diiroo ay laax ak yu mel noonu te xam naa ne moomu moomoo keroog bañ koy jébbal jabar ji muy ki tukki muy kii si lekk na laax mook jabar ji waaw moom voilà du moomoo sax kii la Papa Ndiaye waaw Papa Ndiaye dégg la guró na laax ak yu mel noonu yooyu yëpp ay aada la yoo xamee ne diine bi daf ko tolere ci suñu aada dafa am lenn loo xamee ne nag dafa xajul ci cin li moo di que ni ñuy toog ba nga xamee ne dina dinañu euh, nit dina ñëw en public di wax naan tëdd naag diw def na ak diw lii wax naag moom lii loolu bokkul ci li nga xamee ne mooy sutura ak respecter le peuple la nation ñun li ñu xamoon mooy que ni bu lëndëmee li ñu war a def dans les normes ñu def ko leneen li nga xamee ne mooy feeñ ñu xeex ko mu daal di dellu siwaat normé wu euh, li nga xamante ne moom mooy médias sociaux yi est-ce que jàppoon ne aussi ñoom am nañ ci responsabilité bu mag bu ma damay commencé li nga xamante ne moom mooy télévision yi ak rajo yi parce que li nga xamante ni kenn ñemee koo woon bu temps yi nga xamante ni y avait la RTS qui qui était qui Sénégal yenn dérive daa wax ko gis ci télévision mhm. yenn façon waxu débat yi daa wax ko gis télévision mais ñoo gis ouverture bu amee ñu ne léegi nañu euh, ubbil ñëpp mais ñëpp sax est nekkul loolu moo nekk euh, problème bi wala léegi Sénégal léegi lu lu neex waaye def parce que dag naan mujj mujj euh, njëkkee ma ko fi donc lu ma fi mujjee xam nga li def loolu yëpp moo di que ni bu Sénégal xamatuñu fu ñu taxaw parce que xamuñu xamuñu média wala dañoo xamul leen. xamuñu fu ñu taxaw. gis nga wax naa la ne lépp loo xamee ne ñun dañ ci wàlliwaan yi rek dañ ci wàlliwaan dañ koy def mu ëpp. Mm-hmm. ma jox la benn affaire boo xamee ne bu ñu naan tubaab yi tubaab yi dégg nga bu naan tubaab yi tubaab yi dañuy def nii dañuy def nële. li nga xamee ne moom moom moo moom mooy euh, am solo.

xam nga ñoom ñëpp dañuy copier li nga xamee ne moo di euh, li tubaab yi di def ba da ngay gis sax même gis nga feuilleton yi feuilleton yi boo boo boo koy xool bu baax da ngay xool ne téye verre sax téye verre xam nga ver boo koy téyee da nga koy téye ak classe da koy téye ak finesse mais da ngay gis dañ naan ràcc kaas bi téye ko nag naan ni mais toi tu sais que je non tu sais que je ne t'aime pas yooyu da gis ne c'est faux dans les gestes la ñu war a def sax ñu ko ki te chaque jour nga dégg ñu naan waaw ñun ay théâtre la ñuy def ak ñun dañu nekk ay professionnel Sénégal professionnel u nit ku ñuul balaa nga koy gis da ngay dem ba ca ñu même gisal euh, gisal rek ma jox la benn exemple léeg-léeg da ngay toog ñu daal di la woon ne la ay momo si gars yooyu nekk français ki yooyu léeg-léeg da ngay jékki-jékki sax ñu xulli seen bët parce que africain gis nga tubaab yi keroog gis nga tubaab yi keroog ba ñuy defaree sàngara tubaab yi ba ñu defaree sàngara déedéet dañu defar sàngara ba pare tiens-toi bien li may wax ñëwul de mhm. dañ ko defar ba pare ñam ko mu saf ñu ñamaat mu saf ñu xaw a kii noonu daal di tegaat daal di jël benn loi daldi bind benn loi daal di ne lii indien yi duñ ko naan ak nit ñu ñuul ñi duñ ko naan mhm. loi la ñu def interdire leen ko pour que ñu koy naan parce que da ngay gis dañ koy naan ba pare daal di la euh, au lieu que ñuy doxee seen ñaari tànk bopp bi la ñuy doxee di indi ay yoo xamee ne kenn xamul lan la parce que attanuñu ko gis nga audiovisuel yi ngay gis nii kii yooyu chaque jour nga gis euh, des fois sax da ngay jékki gis benn kamera sax fin de fer lañ ciy def mais man mais man côté côté média bi parce que man foofu laay gënee parce que ak film bi nga xam ne moom mooy euh, cirque noir euh, ñu dem ba yenn scènes yi nga xamante ne dañ koy dañ koy wane nii alors que man sax euh, film yi ma gis daa koy wax France France am na image yoo xamante ni duñ ko duñ ko génne parce que dañ mel ni ko xaw a daggatul image bi wala boog yenn film yi nga xamante ne day am yenn scènes yu yu xaw a grave yi ay minuit lañ koy teg def ci moins de 15 ans mais Sénégal léegi defuñu moins de 16 ans yenn scènes dañ koy génn nii est-ce que nekkul fu nekkee ñoom dañoo dañoo xamul lan mooy lan mooy les normes de am loolu loolu mooy problème bi xam nga dans un paysage sauvage dégg nga da ngay gis ñi jëkk a ñi jëkk a génn rek xam nga yii yuy soog a ñëw la léegi ñoom bu ñu bàyyee mu jàll bàyyiwaat ñu jàll ñu ne ñoom ñoo ko fi dàq. nga daal di xëy suba gis koo xamee ne day jékki-jékki ba ñu commencé gis loolu ci nga commencé daal di gis euh, li la Assane Samba di wax ci réew mi quotidien rek naan la euh, ay problème moo faut-il libérer les mœurs te mœurs yi ëpp naa libéré gis nga. duñ bàyyi gaay ku loolu loolu xawma kañ la waaye du du euh, yegg seguñu ci ci phase boobule waaye kuñ ci jàpp. dinañ la tëj gis nga ñoom day géey guddi town guddi town yëngal ñoom dañ leen nga <laughs> waaw dañ leen a ba ñuy ci leen daal di indi teg parce que am na toujours ñi nga xamee ne rek ñu ngi fi di def euh, li nga xamee ni rappeler à l'ordre mm. dégg nga ak euh, problème bi yëpp mooy suñu doom yi ñun mënatulatu mënalatuñu dara mm. ndaxte ñun dëgër nañ ba pare mais ñun bu ñu demee dégg nga yéen ñii li nga fiy nekk ak la fay nekk ba bàyyil mu sedd bàyyil mu jàll yooyu fa yooyu mooy li tax ñuy xeex pour que ñu daal di delloosiwaat normes yi nga xamee ne mooy ci wàllu diine bi ñu delluwaat ci li nga xamee ne moo di wàllu euh, valeur yi nga xamee ne moom la ñu maam yi bàyyiloon fii te valeur yooyu diine bi daf ko renforcer waaye diine bi jàngaluñu ko waaw kon kon ni koy waxee rek nit ki boo xamul euh, fi ngay dem da ngay dellu fa nga jóge woon ñu rapidement rek en deux parce que temps bi kii ñu wax ci li nga xamante ne mooy suñu euh, nattaango sénégalais yi nga xamante dañ leen bloqué euh, fi nga xamante ne moom mooy Maroc ñu bëgg ñibbisi mënuñoo ñëw donc yow fu mu nekk nii ndax jàppoon na mu nekk nii ñun en Euh, terme de démocratie ñi nga xamante ni mooy ministre bi ñu dénk wàllu euh, affaires étrangères liggéey ñu woo def dëgg dëgg dëgg ngir mën a am protection ci suñu ay nit yu nekk ci bitim réew parce que gis ngeen ne am France Afghanistan américain yi ñu ngi rapatrier seen ay nit ñi nag suñu ay nit dañu am problème fenn ñu ñu toog fa xam problème bi bàyyi leen foofu ñuy souffrir à deux loolu ñàkk yërmande la ak euh, lépp loo xamee ne même administration même solal yére ministre sax da ngay gis que ni du niroog ministre u euh, Amérique ndaxte soo gisee euh, euh, sa askan toujours ñu wax leen ko da ngay dem ci représentation diplomatique yi dans le monde doo xam sax kan mooy ki nga xamee ne mooy consul Sénégal ba wala ambassadeur ba kan la wala ambassadeur ba il faut que diaspora ba ña fa nekk daal di yuuxu ba ñuy xam ne ñëw fi mu ngi bëgg a yegg si Sénégal ñuy soog a réagir gis nga americain yow mii tey jile sa jabar bu demoon Amérique am fa doom américain yi ci boppam dañ koy jël répertorier ko comme citoyen americain bu dara di xew Euh, nga gis les services sociaux dañuy ñëw di ko surveiller di kii yooyu soo deful attention sax ñu daal di ñëw ci biir Sénégal extirper ko yóbbu ko dénga nangu ko ci say loxo mais ñun nag dañu am lenn loo xamee ne ñu ngi koy wax depuis des années moo di que représentation diplomatique le chef de l'État le ministre des affaires étrangères dégg nga dañu amul yërmande yërmande boobu ñu ñàkk noonu nag. dégg nga te fa fekk ni seen benn mbokk moo ca nekkul. yërmande wala ñàkk patriotisme bi. ñàkk patriotisme mais ba mais ñàkk patriotisme dafay dafay commencer ci yërmande. mais su fekkee ne da ne man dama bokk ci Sénégal plan émergent yi moom pourquoi mu dem jaar ca désert ba pourquoi mu daal di jël norme yi mënuñu ko regle ne kooku dafa fekk ne yow ci sa bopp da nga ñàkk yërmande. voilà donc euh, euh, ñii si nañu heure bi moom moo ñu moo ñu xoj euh, malheureusement nga tàggatoo ak ñi nga xam ñooy star jamono ji ci Rewmi TV. waaw Mor encore une fois li li nga xamee ne yëpp mu duuf xajul ci cin li. xajandoowul ci xajandoowul ci cin li donc ce qui veut dire que li ñu ci dugal ak li ci li ci des te toggaguñ ko sax mm. moo ëpp. kon ñu jox ko ñoom moomoo ak eh, eh, ki nga xam ne mooy Malick ak <laughs> Memba ci boppam xam nga moom Memba moom dafa mun a seeñu eh, seeñu ganaar la mën <laughs> waaw ganaar mooy ki yem gis léeg-léeg mu ñëw romb ma sànni ma xeer mm-hmm. waaw di leen wax rek yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox digg daje altineeg jàmm ci beneen numéro bi nga xamee ne rek moo di actu réew mi di gërëm nag technicien yëpp dégg nga di leen wax rek ni gis nañu taxawaay bi ak ñi nga xamee ne ñu ngi nekk ci kii bi ñu leen di fàttali rek ne na ngeen abonné nag pour rek mun na nag di am. li nga xam ne ne rek moo di l'information à chaud. Voilà, am l'information à chaud mooy da ngeen aussi bu leen fàttee ngeen activer cloche de notification bi ngir saa lu dara duggee bu monsieur Jean Favre wax rek ñu sànni la benn euh, benn notification nga xam ne euh, acti réew mi dugg na donc di leen jaajëfal yéen aussi yéen ñi nga xamante ne nekk ci ginnaaw caméra yi euh, moom moo Malick ki nga xamante ni moom mooy Modou ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen aussi di jaajëfal toute l'équipe bi nga xamante ni ñooy topp li ni moom mooy ba bi jaar ci yoon leen jox di daje euh, lundi prochain di seen beneen numéro bu seen émission Actu Rewmi donc bonne semaine à toutes et à tous ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy suivre à travers le monde ak fi nga Sénégal jërë ngeen jëf.